bismillahi irrahmani irrahim wa salla allahu taala ala sayidina muhammadin wa ala alihi wa asxaabihi altayibin altahirin subhanaka laa ilma lana illa ma allamtana innaka anta alalimu alxakim alhamdulilahi alqail fi muxkami tanzilih inna naxnu nazzalna dikra wa inna lahu laxaafidun wa salaatu llahi wa salaamuhu ala man ballaga wa amara bi tabliix fa qaal balligu anni walaw aaya asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu bokk yi biir réew ak bitim réew yëpp ñu ànd na di seetaan seen télévision Mourchid TV ak rajo beeg mboolem jumtuwaay yi mën dégg di ko toppee ñu ngi leen di nuyu. ñu ngi leen di itam ndokkeel leen ñaan yàlla sunu borom boo leen defal tawfiq bi ñaan itam tàmbalee ci kilifa tele bi. njaboot yi fii liggéey ak boroom tele bi yëpp yàlla doon leen sutura waaye itam dellu taxaw képp ku mës a jaar wala ñu mës laa déglu tey rek ci gàttal mbokk yi seen émission taxawaayu daara dafa ñëwaat rek ci biir daara ji ubbiwaat yeneen bunt dajawaat ak yeneen ni néegi daara ci biir daara ju mag ji ñu waxtaane sunu mbirum daara ni ngeen ko xamee nag daara moom sëriñ bi ne ñett a fa nekk jël bind walla joxe bind walla nafar bind kon nu jàpp ne ñàkkul ci ñett ñooñu nun ak yéen ñii seetaan dana nu bokk nekk ñëpp wala nu bokk kenn ki ñooñu bu ko defee nag day duggante xaj sallallahu alayhi wasallam ba mu waxoon rek ñu boo nekkee borom xam-xam wala nga nekk kuy jàng xam-xam wala nga nekk kuy diglu xam-xam wala nga bëgg bokk borom xam-xam mooy téléspectateurs yi ak ñi nga xam ne ñoo sopp di topp émission bi nee na juróomi la ba nag moom mooy zappel hop oustaz yaa ngoog nee na boobu moom baaxul neena na day alak nit yàlla ci yàlla musal <clears throat> tey kon <clears throat> ngeen baal ma noo ngi dugg ci émission bi am ñaari mbokk yu fi jóge yu fi ñëw nii bu ñu leen dee tudde ay gan mën nañu koo nangu waaye dañoo bokk ci biir liggéey bi kon waxin rek mooy tudd baatu gan bi waaye ñooy waroom kër gi sama ndeyjoor lan am a sayid cheikh oustaz jibril diop nga xam ni ma nga jóge kenn ndar daara ji nga xam ne moom la am tey pour xool ko xam lu ko di ma ahad tey siril asir bu bàyyi cheikh sëriñ moor diop ndar moom la ñuy dalal ci bu njëkk bi danañ ko jox mu présenté wu jëm moom ci liggéey bi incha allah taala keneen kii des mooy oustaz Sidi Bouya toog di coordonnateur national bu jamiyatul irshad islami wa tahfidul quran al karim ñu koy tënk ci aswamek moom itam mu indi li aju ci association bi ci jamono bi ñu toll ci li mu ci war a joxe kon ñu tàmbalee ki suñu mbokk Cheikh Jibril nga nuyoo te présenté wu asalaamaaleykum wa rahmatullah waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatuhu asalaamaaleykum alhamdulilahi rabbil alamin wa bihi nastain wala hawla wala quwata illa billah al azim salawaatullahi wa salaamuhu wa barakaatuhu ala muhammadin xayri xalqi summa alihi wa saxaabatihi ajmain bokki jullit yi ñu seetaan ci biir réew bitim réew ak ñi ñuy jéglu ñëpp ñu leen di nuyu di leen ziar di jiital ci nuyoo bi kilifa kër gi di ñaanal yàlla Cheikh Mouhamadul Moustapha almurshid al ala al murabbi al muallim suñu defal ko tawfiix ak taysiir bu baax su kattanam ak wéram li mu occupé ci réew mi ci wàllu jàngale ak yar ci diine ji ci wàllu gépp ak ci alquran ci njaboot gi suñu borom yàggal ko fi ba mu def ci la kawe njortam te suñu borom dundi ko ak wér-gu-yaram ako sago ak mboolem ñi koy jàppale ñëpp di nuyu oustaz Khalifa Kane xam ne moo ñu dalal ci émission bi nuyu oustaz Sidi Bouya Tall toppoon jéglu itam di ko ziar bu baax ñun ñu ngi bàyyi koo ndar daara tey sino asir Serigne Mor Diop di daara ju mag joo xam ne daanaka jóge na juróom-ñaar fukki at biñ ko sosee ak léegi ñu ñëwoon tey bàyyi koo fa ci ndigalu suñu kilifa ki nga xam ne directeur général suñu mag suñu Ahmadul Xayri ñëwoon tey bëgg waxtaan ak njaboot gi xamal leen daara ji ak liggéey bi jërë ngeen jëf. jërëjëf al imam Jibril al ustaz Sidi. asalaamaaleykum wa rahmatullah. waaleykum salaam wa rahmatullah. ñu ngi lay di la ziar bu baax a baax di beral ak ziar ustaz Jibril. di nuyu téléspectateur yu Mourchid TV yëpp waaye di jiital ci nuyoo yooyu ak ziaraat yëpp kilifa kër gi muy Cheikh Seyd Mouhamadou Moustapha Sy di ko ñaanal yàlla yàlla yàlla dëgëral ko kàttanal ko mottalil ko yéenam ci yaru njaboot gi yàlla wéral ko bu baax a baax di ñaanal itam ki nga xam ne moom la fi teg muy Hadj Makhtar Ndiaye moom it di ko ñaanal yàlla yàlla kàttanal ko ba mu yeggali yen bi ak mboolem ñi koy jàppale ñu ngi ci liggéey bi comme ni nga ko waxee ñu ngi fi ñëw ci turu Aswamek ñu fas yéene waxtaanee lu yitteel wala lu concerné lépp lu aju ci mbiru daara alxuraan yi jërëjëf jërëjëf bisimilah. baarakallahu mbokk yi kon nag mi ngi noonu suñu ñaari mbokk yu baax yi ñëw tey li ñu indi mooy li ñuy junj nii kon ñu del si waat Cheikh Jibril yow de yaay mudiru qismil quraanil karim fii ma aj taysiril asir lan mooy daara taysirul asir jërëjëf oustaz daara taysirul asir day daara la joo xam si ma nga ndar booy dugg ndar rek ci daañu mën naa wax ci bunt bi rek ci Euh, gaaru ceer boo ko wàccee diggante ak daara ji warul mat 300 mètres wala boog 400 mètres daara ju mag la joo xam ne si mi ngi sosu woon 1954 ci sëriñ bu ñuy wax sëriñ Mor Diop di suñu wajur daara ji nag li ma wax léegi dund na lu yàgg ndax ma nga soso woon quartier bu ñuy wax Balakoos ci biir Ndar 1954 tuxoo fa ñëw jàmm gën benn quartier la boo xam si mu ngi ci biir ndar foofu am na fa ñaar fukki at 1977 78 ci la fa sëñ bàyyi ko nag door a ñëw fii ci soor mooy booy dugg ndar noonu mooy mawqaa bu mujj bi xam ba tey ji fa la daara ja nekk muy daara joo xam si lim liggéey ci Sénégal ci wàllu alquran lu bari la ndax ñi may déglu nañ ko xam ñu bari xam nañ ko ñi fa mokkal alquran tamit te jaar fa kenn xamul luñ toll ña jaar ba génn samp ay daara tamit di jàngale alxuraan ci biir réew mi kenn xamul luñ toll ak ña jaar ba génn fa di jàngale xam-xam tamit kenn xamul luñ toll ci biir réew mi daara jooju nag fa lañ bàyyi tey ñëw doon ci waxtaan ak yéen foofu loolu mooy daay tey siru asir sëriñ Mor Diop doonte sax am na ay bànqaas yu bari ci biir réew mi ci région yëpp waaye al umm mooy ndey ja moom foofu la nekk mooy daal tey mm-hmm. sul asir ca mm-hmm. ndar dem ca daara ja yasirun xayru ndax fu mu nekk begg dina macha allahu taala wax na itam ci taarixu daara ji ni am na juróom-ñaar fukki at ren ndax cinquante quatre la ñu wax mm-hmm. noo ngi deux li mooy li nu bëggoon a xam mooy wax nga ne am na ay furu am na ay bànqaas yu bari ci biir réew mi wala ay bànqaas ñu ko mag ñuy waxe ndax daar ci boppam al uh, mahadul um ak wangaasam yi mu am ci biir àddina bi lay wax ndax jéggi na Sénégal kon ñoom ñëpp ci benn programme la ñu tënku bu daara gi tëral wala bu nguur tëral wala boo xam li nga ko jëlee feneen ko waaye daal ñoo bokk programme xarfan bi xarf wala déet jërëjëf oustaz daara la joo xam ne si euh, programme am ci wàllu njàng damay njëkk a ñëw ci riwaaya ñun dañoo tànn riwaaya warsh mooy riwaaya bi nga xam moom lañuy ñuy jàng ñun ci koo xam ñoo door moom njàng bu dee nag koo xam dafa jotoon a jàng door a ñëw bu ñëwee indi beneen riwaay lu mel ne xafs doon ko jàng dañ koy continuer ak riwaayam boobu waaye bu dee suñu programme bopp xam ñun ñu lay dalal moom ci riwaay was lañu lay jàngalee suñu programme njàng itam dañuy tànn samedi dimanche ba àllarba moom moom lañuy jàng di noppalu alxamis ajjuma am itam ay heure jàng heure jàng yi tamit bu dee suba gi la ñun dañuy jël huit bu dee ngoon nga jël 3 heures ba 6 heures demi marax gi ma timis gi dañuy jàng ba gee gannaaw gee dañuy jàngal une heure jël benn une heure temps jàng ko mooy 5 heures ba 6 heures sans départ ci heure julli bi waaye daal benn waxtu la ñuy jàng programme bi tam programme mokkal alxuraan la maam daal maam xale bu ñu koy jàngal lañ koy ci programme pour mokkal alxuraan mu des mu des nag ba xam dana mokkal wala du mokkal ndax la tamit beneen beneen kii la waaye ñun programme ba la ñuy jàngee lañ koy jàngale bu suñ borom dogalee mu nekk war naa mokkal ci programme bi mokkal am na ñoo xam si dañ wàcc parce que ñëpp duñ mokkal waaye la ci ëpp ci ñoo xam si bu dee njàng dong moo tax ñu mokkal moom xam si amuñ gàllankoor boo xam si ci ñoom la doon wala bokk mu nekk gàllankoor ci waajur yi wala yu mel noonu incha xale mën na mokkal alxuraan waaye am na ay gàllankoor yoo xam léeg-léeg ci njàng nit du mën a mokkal alxuraan mën na aju ci moom mën na aju ci leneen Euh, ña fa nekk tamit am na ñoo xam ne dañuy dëkk ci biir am ñoo xam ne dañuy dem di wàcc di ñëw ndax comme biir ndar la nekk ñenn ñi dañuy toog samedi dimanche ba àllarba ñu dem seen kër ñaari fan yi xam di ko jàng ñenn ñi dañuy jàng wàcc dem seen kër añ ñëwaat ngoon tamit ñoom fan seen kër xëy ñëwaat waaye programme daal bu dëgër moo fa am boo xam si euh, am na euh, xam na dañ ci ñëw ci ko am sax am na ay détails ci wàllu njàngin mi ay aqsaam la ci alxuraan geek xam-xam bi bu dee nag yi comme ni nga ko waxee léegi am nañ ay furu yu bari ci région yëpp ba Gambie ak Casamance yu mel noonu ñoo xam si ñun lañ génne woon léegi nag am na si ñoo xam ne dañuy jël suñu programme ñun biñ jànge woon ñoom ci daara ji buñ demee moom la ñuy tatbiix seen daara yooyu moom la ñuy seen daara yooyu waaye lu tee am nañ am nañ infitaax mën a nangul tamit directeur bi wax moo fa ne mu jël beneen programme ñëw ñu jox ñu xool ko même bu ñu wutee programme te gis ne bi ba tey baax na ñu bàyyi ko mu doxal boobu ci liggéeyam yooyu tam noonu duñ duñ ko bañ ndax ma comme daara yee cosaan la te daara yi mujj yi bari daara internat la xëy na léegi-léegi mën na am am ay wuute wuute ci ay temps parce que lay demee mm-hmm. waaye soobaa am nañ infitaax bàyyi kooku doxal doxal programme ba waaye nag dee doon loo xam ñun jàngat nañ ko xool ko ba juboo ci moom te itam day am muraaxaba goo xam si dañ ci dañ moom la ñu ànd ak moom ci liggéey boobu. tabaarakallah ak ca bu mën a doon ci programme yi ak bu mën a doon ci état bi daal dina fekk booba ba bu dëgër boo xam ne dana wane ni lii war naa mën a jàll bu dee xool nañu du la mën a jàll dañuy seet la mën a jàll ñu jàllale ko jërëjëf ba tey euh, xam naa cheikh bi. programme boobu dafa am solo hmm. te daara itam noonu la war a yaatoo ba ki ñëw li mu andi dañ ko ci tegal lu ko moot waa duñ ko ko digli moom seet di ko jéem a leneen da jël temps te mën naa tax kee découragé euh, léegi nag ci biir loolu ci la ñuy yëgee ni kon daara gi dafa nekk benn barnaama saamil lépp nekk ci biir riwaaya bi nga xëy mooy base daara gi itam ci alxuraan karim nekk riwaaya warsh waaye teewul ko fa andi beneen riwaaya dañ la koy jàngal ndax ni ñu mën a riwaaya warsh noonu la ñu mën a riwaayaat yi ngi des waaye lu mu doon am na fu muy sës seen teslaay mooy riwaaya warsh an an naafia li ngi topp nag mooy jàng boobu ñu koy jàng itam wax na ñi nga xam ne yàlla dogal ci ñoom mokkal danañ fa mokkale waaw ñoom am na benn xadd bu ñu tax a ni maanaam temps bu ñu nii kat temps bi ko fi am day mokkal li yi wax ñetti at wala wala juróom wala loolu am na ci daara ji wala amu fa ci ci maxat bi bi zaat maxatul um waaw ñun moom yàlla dogal na suñ daara tees yu asir ñoom duñ tax diit duñ tax diit donga bi duñ ko tax diital ni kat ci nangami at yi gis nañ koy jàngal mokkal alxuraan duñ ko def mm-hmm. wax naa la sax ne suñu programme mooy ñun xale bi mm-hmm. dañ koy teg programme pour mokkal alxuraan mm-hmm. maanaam daal koy jàngal waaye nag duñ ko appal benn app léegi bu démarré jàng temps boo xam war naa mokkal alxuraan mu mokkal ci alhamdulilah bu fekkee mokkalul dañ ko ci dollil bu fekkee dolli nañ ko nag gis ni kii mënut mokkal alxuraan su boobaa dañuy woo ay po moom mu xool ba xam da koy jël yóbbu ko feneen ñooñu jëm wala da koy bàyyi ñun ñu continuer alxuraan gi wala da koy jël ñu sóob ko ci njàngum xam-xam mi ndax am nañ fa ndax dafa am xismu xismu alxuraan la am xismu taalim al majlis yi dañuy jàng xam-xam am tamit école franco arabe léegi day xale bi mën naa yéex a mokkal alxuraan mbaa ñu xam ne mënut mokkal mm-hmm. ñu jël ko ci dugg ci njàngum xam-xam mi wa tàngal jàng xam-xam diineem bu wajuram bu tàmmooy tamit dugg ci franco arabe bi dugg ci franco arabe bi hmm. Hmm. noonu daal la doxalee xale yi hmm. waaye duñu appal kenn ay at moom <coughs> waaw baarakallah waaw sin sidi yéen de lu bari dama daan dégg lu baree bari ñu naan ko jàng ñett at ko def lii danaa ma déggaat ngeen di wax ni ñun tënkuñu kenn ci at lan moo waral loolu xanaa jàng-jàng rek la nit ki tam nit rek la lu tax ñii ni ñett at ñii ni noonu ko def waaw xam naa ñu ngi ziyaara bu baax Oustaz Djibril di leen encouragé bu baax a baax ci liggéey bi ñu def ci daara ju di ñaan yàlla saxal ko ñoom it yàlla dëgëral leen ndax ñu ngi ci liggéey bu am solo xam nga xale yi moom xelu xale yi tolloowul loolu benn la ñaareel bi âge yi ñuy ñëwee ci daara yi aussi tolloowul hmm. ndax léeg-léeg nga gis ku la indil xale ci juróomi at léeg-léeg nga gis ko la indil xale ci juróom-ñetti at léeg-léeg nga gis ku la indil ci juróom-ñaari at léegi sax nga gis ko indil ci fukki at ak nangam euh, ni seen xel yi di âge yi di wuutee léeg-léeg xel yi dina nekk problème noonu waaye fi jamono toll lu nekk mënees na ko mënees na ko euh, tanfis euh, mu ngi koy tudd sànq programme programme bu nekk ñu nekk daara ju nekk ak seen programme léegi fi ñu toll am na ñoo xam ni fexe nañ jéem nañ ci seen yi programme ba ñeenti at xale yi di mën a mokkal alxuraan euh, lu normal la ndax mbir moo xam ne nit ñaa ngi koy def ñu mën cee teg bët. Mhm. loolu kon ñëpp ñoo ci bokk nangu waaye li muy wax sànq jiital lu am solo mooy mokkal alxuraan moom jagle jaglewu yàlla la ci jàmm bu nekk. nit def na ñetti at sax mbaalu ci topp tuuti daal di mokkal. Mhm. nit def ñeent at képp mokkal. nit jéggi loola ba def juróom-ñaari at mënul mokkal. Mhm. waaye ci ngay xamee njàmbaaru sëriñ daara ndax xale bu nekk comme ni ma ko waxee bu fekkee euh, yoon nañ ko rek ñaari at ak ñett danañ commencé xam lim mën ak lu mu mënul su mënee àggalee ci ñeenti at alhamdulillah su mënta yeggale ñu yokkaat tegaat ci ay weer wala ay at su sottiwul ñu orienté ko ci jàngal ko xam-xam sóob ko ci te loolu méthode bu am solo boo xam ne daar yu bare bëri ñu ngi koy def euh, lu jaadu nag ndax nit ku nekk it booy booy jàngale war nga am programme boo xam ne danga nga wax ne programme bi nii lañ ko tëralee su ci xale bi jaaree dana fexe danañ mën a jéem daal bu koy def ñeenti at moom mokkal gi dana am bu boobaa bu amul nag nga yokk ci dara bu sottilu nga xam ne léegi euh, ndogalu yàlla moom moo ci des ñu dimbale waa ko ci yeneen orientation dimbale ko ci xam-xam waaye ala kulli xaal li gën a bari ci daara yi léegi ñu ngi góorgóorlu ci ñeenti at xale yi di tari alxuraan mm-hmm. loolu ak njàmbaar la ak te yu bare bare bari yoo xam nit ñaa ngi koy def mu jógee ku mel ni euh, Oustaz Moustapha Diop Ndar mm-hmm. def naa gis nga programme boobu mu defar barnaamij mu yes mu yasaram boobu xaw ma mm-hmm. voilà liggéey na ci liggéey bu rey génne programme bi nga xam ne moo am Fass Touré moom la ñu jàngale wane seen yoon méthode bi ñuy jàngale génne programme bi daara kokki di jàngale defaat beneen programme defe naa suma juumul Touba la indi programme bu nekk indi na ko waaye ci ëpp boo ci xool dañuy mujj a daje ci ñeenti at yi te loolu yitte ju rëy rëy la loolu daal lañ ci doon yokk xam naa ne di ci mm. encouragé waat ñëpp rek di wax ne nit ku nekkit xale bu nekk rek jéem ci sa kéem kàttan la ci des nga bàyyi ci loxo yàlla te loolu lu am solo la jërëjëf tabaarakallah tabaarakallah oustaz Sidi foofu ndax eh, at yee sa gannaaw daal boobu day bari loolu ko ubbi rek ni ñetti at mm-hmm. fekk nañ ko fekkee te kon dem ba yàgg ñetti at yi ñu xam ne loolu kii la xam nga bind mbir ak appliqué ko tan fiis ko mu sottee dafa bokkul danaa faral di wax ne ñii wax ay at ci wàllu njàng ñoom waxuñu pour koy mokkal mooy programme mu français bi wala arabe bi wala lii ñoom doo mokkal da ngay xam lii ñu natt loola xam ne xam nga ko wala xamoo ko ñu pare ca kii nag mokkal la wax xifz lu bare bare comme alxuraan nga teg ko lépp ko biir dënn bi mokkal ko loolu moom dagle yàlla la waaye wuute day am ci xel nit ñi ak âge yu mën a doon dañuy wuute rek ci euh, foog naa ni war a mën a mokkal ak ñàkk mën a mokkal moo tax waat ko moom moo moo rek ba na li di maandute mooy loolu mooy téye xale bi jox ko programme boo xam ne wóor na bu ñu ko toppee ñu ko war a toppee normalement bu àggee barab sax nga war naa mën a mokkal am na koo xam ne am na xale yu mokk yu amul ñetti at ba ñuy mokkal waaye am na foofu ci côté boo ko am fukki at ci jenn daar ji hmm. ndax waajur mooy sàkku na continuer rek di jàng ba keroog muy nangam nangam looloo tax xam naa bu ngeen ci gënee yaatal parent yi leen rek góor góorgóorlu ci loolu ko xam ne daal mun la mokkal dañu seetal ko gaaw programme hmm. bu mu mën a kii jërëjëf euh, oustaz kon ñu del si waat euh, am nga tuuti noppalu aqsaam taalim yi nekk ci biir ahad bi hmm. liñ bëggoon a xam bismillah waaw daara ji ba tey Taysiroul Assir daara la joo xam si comme ni ma ko waxee léegi dañ ko séddale ñetti xaaj am na xismul quran boo xam alquran dong la ñuy jàng am na benn xism boo xam si xam-xam la ñuy jàng mooy ñi nga xam dañooy ñëw fekk nëpp nañ ci alquran xam ne jàng si xam-xam dong ma leen tax a jóg ak ñi nga xam ne ñooy mokkal alxuraan ci biir daara jooju ñooy bu ñu leen boolewaatee ñoom ñooy nekk ci xismu taalim al majlisi bi di xam-xam am beneen xaaj boo xam ne si franco arabe la yépp nag mu ngi nekk ci benn barab bi ki tàmm doomam jàng franco arabe kese sans sax mu jaar ci daara ji day ñëw dugg ci école franco arabe boobu kazalika donc bi nga xam ne si mokkal alxuraan ci xale xam ne ay atam bëreegut ku ko juróom tamit jël ko orienté ko ci école franco arabe bi itam day dugg ci franco arabe bi ak ñi nga xam yoo nekk ci biir dëkk dëkk dëkk ndar dëkk daara ji xam ne seeni doom dañoo tàmm rek mu jàng école franco arabe directement ñett ñooñu ñooy day fekk école bi waaye boo ñëwee da nga fekk daal xismu quran xismu taalim al majlisi ak xismu euh, taalim al arabi al faransi bu dee am na benn buñ ci yokk mooy am na li ñu tuddee ak xismu takwin al mihani mooy euh, ndax sëriñ bi itam bi mu sosee daara ji mm-hmm. comme wax sànq mm-hmm. am na ci nit ñoo xam si dañ kaa jox seen njaboot féetale ko mm-hmm. ne ko ñi ñoom même bu dul cadre njàng sax yow la koo jox sëñ bi dafa profité ubbi benn xismu takwin al mihani yi maanaam daal ñooña mu leen dugal ci njàngum mécc suñ pare ci alxuraan moo tax boo ñëwee si daara ji da fekk tey ñoo xam si ay maçon lañ te foofu lañ jàng ci daara ja ba tey ñu ngi liggéey nekk chef da nga fekk ñoo xam ay menuisier lañ ñoo xam métal yi la ñuy liggéey ñi nga xam si ay tamit dañuy liggéey ci arménion ak ci métier yu bari yoo xam si ñun ñëpp ci njaboot daara ji lañ génne fa lañ jàng seen alxuraan seen xam-xam pare ñu defal leen formation liggéey ndax sëñ bi dafa tànn ñetti nit jox leen entrepreneur bu mag bu nekkoon foofa mu jàngal leen métier ba formé ci kilifa goo xam tey moom moo jiite ñooñu ci wàllu tabax waaye tamit ci yoon yi ma wax yëpp ci domaine yi bëree am na ci boobu mooy ñeenteelu moo ko moo ko ñeenteelu xismu takk di mooy ñoo jàngal te yëpp lan lu ci ne boo ñëwee looy teg bët la ca barab ba fa loolu boo ko boolee mooy maat tesir asir mu ñeenti xaaj yooyu ma wax léegi kon gis nga ni programme bi tëddee waxoon nañu ne barnaama saamil la lépp a ngi ci biir waaye surtout bi liñ gën a war a mën a bàyyiwaat xel mooy at taqwin almihani dañuy faral di wax ne ñu jógee ci daara yi duñu mën dara du lu jàng doon waaye itam am na leneen lu ñuy mën ndax jàngalee ngi fi si di fa toog dina ko faral di wax kooku métier la waaye am na ñoo xam ne ki mënul a àgg fenn fi ci jàngale ndax xelam demu ca te am xëy na am na mahaara yada wiya maanaam euh, loxoom am na yeewute am na nu ko yàlla bind noo xëy liggéey rek moo ko mën ci loxoom kooku boobaa bi ko jàngalee ki daara ji mu dem bu ko génnaalee génnaa ne métier te mën naa jariñ ñeneen ñu baree baree baree baree bëri loolu am na solo lool lool lool sëriñ bi euh, oustaz Sidi yéen wàllu woowu xam na yéen a ngi bàyyi xel ba sax ñi nga xam ni dañoo jàng ci daara yi ba noppi wàññu ko waat dem ci biir li ñuy wax euh, système bi maanaam système éducatif bi euh, nguur gi jël leen di leen jàng leloo alquran ci biir seen euh, école alquran yu publique yi ñoom seen takwin boobu nu demee ak bañ fa duggee lu fa jële waaw euh, li Oustaz wax sànq dafa bokk ci li gën a wane njàmbaar ak effort ak yitte yi nga xam ne sëriñ daara yi ñu ngi koy def mooy boole di jàngale euh, di yar di tàggat ay nit walbatiku jàngal leen métier ñu génn. loolu nag image bu am solo la mu wane ko ndax dafa am beneen image bu ñuy wane ci daara it bu boobaa dañuy fi bàyyi bii te jàpp naa ni bi ëpp ci li daara yi liggéey mooy loolu mooy jàngale mooy yar huwa alladi baata fi l ummiyina rasulan minhum yatlu alayhim ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhum alkitaab wal xikmata mooy jàngal jàngale tàggat yar joxe métier loolu ñu nekk ci di liggéey euh, yaa ngi koy wax sànq sëriñu daara yi bu ñu yemoon ci jàngale jàngale alxuraan rek ba jàngal alxuraan ba nga mokkal ko mën koo bind mën ko tëju tëju bu rafet ñu pare ñi delloo la say waajur bindal la ijaaza nga dem yam caag yow jàngal nan la jox na la métier mm-hmm. ndax fii ñu toll ci Sénégal jàngale alquran wala njàngum alquran demande social la ci suñ société ndax booy jur wu nekk yaa ngi soxla ku la jàngalal sa doom alquran mm-hmm. ñii ngi ci daaree ñu jàngi bu ñu fa demee kan fay jàng fekk muy jàng muy jàngale daf cee am dañ ko cee fay mu mën a dundaleeg njabootam métier ngoog mm-hmm. mm-hmm. tey ñii ngi naan sax dama bëgg kuy ñëw sama kër di ma jàngal si samay kër sama kër samay doom ngay fekk sa waa kër leen jàngal di leen jàngal nga di ko ca fay kooku métier la ma nga cee liggéey ñii ngi pare génne ci daara yi dem tabax ay daara wala boog sanc ay daara toog fa di jàngal alxuraan moo xam daara internat la walbatiku jël ay nit ñu ñëw di liggéey ci nga leen fay mm-hmm. ñii ngi jël jàngalekatu alxuraan jël ay encadreur yoo xam ne ñoo fay nekk di tàggat xale yi jël ay femme de charge jigéen ñoo xam ne ñooy nekk xale yi di leen toggal dem nañ ci ba léegi ñii ngi jël sax ay infirmière ñii ngi jël ay secrétaire ñii ngi wut comptable ñii ngi wut lu nekk tàggat nga ko jàng ko ko xam-xam génn taxawal na entreprise fi ne nii ba ngay liggéey di fay ay nit mhm. yàlla di ko ci teral mu yor boppam loolu li may tooñ te pour pourtant boobu ba léegi gaa yaa ngi toog naan daara yi moom alxuraan rek la ñuy jàngale jàngalul métier man leen jërë ngeen def ñun moom ñu ngi jàngal alxuraan jàngale métier mhm. kon loolu lu am solo la mhm. loo xam ne liggéey bu rëy la bu daara def ba ca des ñu wëlbatiku teg ci jàngal nit ñi xam-xam nit ki am xam-xamu diine nekkaat demande sociale ci société bi ñu nekk ndax koñ boo dem jàkkan fa foo dem imaam nga fa ñu ngay wëri imaam télévision yaa ngi soxla ay boroom xam-xam yuy wax ci diine nit ñaa ngi soxla ay conférencier ñuy wax ci diine nit ñaa ngi ci lu nekk loolu di beneen beneen yoon boo xam ne ñu ngi koy liggéey ñu xëy dolliwaat ci beneen mooy jàngal la alquran jàngal la xam-xam ñu dem ba suñu état soxla ay nit ñu dugg ci seen système bi di jàngal alquran te ba léegi gars yi ak naan ñun amuñu métier. Hmm. <laughs> waaw kon nguur soxla nañu. jël na ci commencé nañ ko léegi. Hmm. am na ay daara yoo xam ne état bi tabax na ko. Hmm. ñu ngi leen ci jaajëfal di leen encouragé di ñaan ñu yokk ko mu gën a bari. fexe ba koñ bu nekk daara yi am fa. ndax daara yi moom na gën a bari ndax loolu demande sociale ndax sénégalais yi ñoo ko soxla. suñu paree ñooy jëngoo ci daara yi la ñuy wëlbati ko jëlaat leen ñu dem fa di jàngale am na ñu nekk ci seen formation am na ñu nu formé ba yóbbu leen ci daara yi ñu ngi jàngale ñooñu itam xëy na fàttali la waaye soññ état bi di wax ne ñooñu ba léegi amagul ay inspecteurs yu dem seeti leen ba ñu mënul nekk ay fonctionnaire nekk ci biir système bi dëgg ba léegi ñu ngi jàngale nii rek wante ñu ngi ñu ngi ci soññaat soññoon nañ ci président ca rencontre bu mujj bi waxoon ko nekkoon ko nañu fexe ba ñooñu nañ leen seeti parce que ñu ngi jël âge te te kenn ku nekk xam ne ne fonction publique sa âge bu ko xasee wees pour nga dugg fa dafay xaw jafe. Mm-hmm. te loolu am na ñu fa def ay at toog di xaar ba léegi kenn seet su leen xëy na euh, ministère bi wala inspection de daara wala direction de daara am na. Mm-hmm. ñu gën ñu bàyyi xel ci ñooñu. maa ngi woon ci métier yi yi nga xam ne daara yaa ngi koy tàggat. nit baax na di ah. baax na defe naa loolu. Mm. yooyu yëpp ña nga ca. Mm. waaw oustaz indiwaat na beneen léegi. mooy ña ngay jàngale métier ci biir daara yi ñoom seen daara ñu ngi tàggatal xale ci beneen métier moo xam bu sam xel màccul ci xam-xam bi màccul ci alxuraan ñu fexe ba xam parce que day am ci xale yi baax na da nga gis xale boo xam def ci moom alxuraan jafe def ci moom xam-xam jafe na waaye boo ko dugalee ci métier li métier li métier léegi menuisier la leneen la leneen la mu dem gis naa aussi yenn état bi aussi mi ngi commencé ci seen ministère yi ministère de l'emploi xam nga ñu ngi créé ay cadres yoo xam ne pour di jàngal xale yi métier ci daara yi loolu am na solo lool jërëjëf na solo lool daa yi daal waaw kon métier moom am na ci daara yi xamul lu fi ñàkk waaye du moom loolu ko fa xaar mu fekk la fi ko jël tam am ko ñoom itam ñi ñu jël nag ne dañ leen di jox métier nañu fexe li métier bi laaj ñu def ko te mooy yabal defal leen cadre yabal inspecteur ñu seeti leen ñu yéege leen ñu nekk ay fonctionnaire ni ñu ko waxee woon bu dul loolu kat fi rek mm. di jàngaleel daara yi seen bopp di def ngir yàlla di si am seen xewal bu baax a baax nag eh, sëñ Diop bala ñoo dem ci xaj na dafa am benn problème boo xam ne daara yëpp a ko bokk mooy ay problème kese la daara yi am. te li waral looloo ko waral. ceetaan mi daa bari de. ma bëggoon nag eh, nga ñëw ci waaye nga indaale ci biir loolu ndax lii ngay bëgg a andi nii bu dee dagee boo bëgg a dajeeg eh, sëriñ daara yi. ak élèves yu jëkk yi ak ñëpp ñu daje bu ñu waxtaanee li jëm ci xulul yi dana dana ko dana ko andi dana andi lu ci bokk mooy ñu xool waxtaan dagee ñoom ñi fi nekkoon ku ne am nga loo mën léegi fa ñuy jàll ba daara ji mën a yëkkati ko waat mën a garñaar réew mi ñëpp mën cee amaat gis-gis boo xam ne boo yëkkati ko lay doon kon dana koy boole ak li nga xaye mooy seen programme bi ngeen jullu si ci kattanu borom incha allahu taala ndax waxtu waa gi quelques minutes yu néew gi des mm-hmm. jërëjëf comme ni nga ko waxee rek euh, oustaz euh, Sidi wax na lu am solo mooy daara yi nit ñi war leen bàyyi xel bu baax ndax adduna maanaam dund doomu adama ñaar la mooy diine wàll gi diine la wàll gi adduna la waaye walla go ci diine bu ñu ko dindi woon tey suñ dund ñun ñii dootuñu nekk ay jullit kon ñëkk de njëkk a nekk jullit awalan ñu door wax waxi leneen la cay jullit nag nga xam ne moom moo say sa dund lislaam kooku lépp daara moo koy taxawee ab sëy ba mën naa door si ba joxe benn exemple sëy li ñu tuddee sëy tey ab sëy daara koy takk ku fi takkoon ab sëy tey jii te alxuraan amu ca wàll sëy taxawut njaboot taxawut dara baaxut alxuraan dafa mënta ñàkk suñ dund ci wàll gépp duma sax egg egg ci des bari na waaye ñun li ñuy liggéey ci li ñuy liggéey ci biir société bi même sax bu dul cadre jàngale métier diine gi nga xam ne dañ ko soxla soxla te mënuñu ko ñàkk rek ki la koy jox ki la koy jox kooku rek moo fayam kon te taxawaayu sëriñ daara moom kenn mënu koo fay daara nag yëpp am ñoo ko bokkale problème yi mënoo ko tudd lépp waaye bokkan ci problème daara mooy waajur yi léeg-léeg seetaan gi day xaw a bari comme ni nga ko waxee léegi ndax itam jël sa yëkk sa doom yëkkati ko jox ko ab sëriñ daara mu di ko jàngal alxuraan man damaa jàpp ne sëriñ daara bi moom lii warteefam ci xale bi rek mooy jàngal ko waaye ba warteefu dund xale bi dundam ak wér-gu-yaramam loolu ki ko jur la war donte sax sëriñ daara yi bari ñu ngi jëm léegi ci dundal xale bi ak di ko fajak di ko yeneen yi bëree bari loolu bu ñu ko defee yàlla fay leen ndax warteefu jullit la ci morom jullitam waaye woo jur la war kon ku yëkkat sa doom jox ko joxe ko ci ab barab te nga xam ne kooku bu dëkkoon sa kër dafa yeewoo tey bis bu ne danga ñàkk ci am dara ndax bis bu ne lekk sa kër dana fa naan dana fa tuur ndox dana fa sangu dana fa talu làmp loolu lépp ci sa poos lay génn ci bis booba kon jàppal ni jàppal ni xale ba fa mu nekk loola ma nga ko fay am kon loolu booy juree nañ ciy bàyyi xel te daara yoo xam si exemple lu ëpp junni junni dongo ña nga fa ndax suñu daara junni dongo lu ko ëpp ma nga fa ku ne xam na dañuy consommer consommer ndox dañuy consommer tamit courant ndax junni dong kooku mbooloom bari la waaye tamit seen wàllu wér-gu-yaram ndax itam dong du feebar rek ngay wajuram ko jël si ko faj ko donte sax dañuy woo dañuy woo wajur wi waaye bala nga koo wooy tamit da nga ci jéem la nga cay jéem loolu xaalis lay lay doon ndax lu ëpp junni nit kenn ku nekk jéem ci moom dara ku ne xam na alal ju bari la kon wajur yi foofu am nañ problème mooy nañuy gestu ñañ jënk seen xale ya ndax tamit euh, am na coono bu fa am mm-hmm. ka dëkkandoo yi xam ñoom itam ñoo dëkk ak daara ndax képp ku dëkk ak daara tamit man jàpp naa ni am na la war ca daara ja ndax daara lu toll daara ak la ca nekk ci yow ku dëkk ak moom donte sax ñu ngi sant wajur yi baax na ndax wax dëgg yàlla gis nañ gis nañ daara yi dëkkandoo yi ña nga cay jàpp bu baax ñii ña ngay tibb añ di indi ñii ña ngay tibb reer di indi ñii ñu ngi jël ay donga dëkk seen ndawi daara leen fóotal leen dimbali waaye ñu gën cee bàyyi xel xëy na benn bi mooy ñi nga xam ñooñ jiite te réew mi nekk seen loxo ci wàllu saahir ñu lay tuddee ñu leen tuddee xëy na état ñoom itam ñu jàpp ne ñun li ñuy liggéey ñoom lañ koy liggéeyal ndax ñoom la war ndax ñoom lañ dénk réew mi kon ñoom tamit bëgg nañ ñu gestu daara yëpp def fa seen loxo kilifa diine yi tamit ñu ngi sàkku seen ndimbal ci daara ndax kilifa diine yi tamit bu ñëpp jugee ci ñoom lañ jubali kilifa diine nag fu waay nekk di di yëngal diine ñoom lay jàppale ndax ñoom ñoo waroon sol seen dàll dem fépp kon seen njaboot tamit moo nekk foofa waaye tamit borom wërsëg yi képp ku am wërsëg tamit jàppal ne daara mi ngi lay talal loxo kon loolu moom lu ñuy wax la li stop mooy dañoo am benn bis boo xam si bisu alxuraan la nga xam ni mën naa wax ni biñ ko tàmbalee léegi léegi mat fanweeri at ndax li ko tàmbalee deux euh, mille neuf cent quatre-vingt-quatre quinze ba léegi ñu jaaroon ci daara ji ba génn fa dañoo am benn association mooy jamiyat xirijul maad dañoo amal nag benn benn ziar bi ñuy def chaque année jëmee ko ci daara jooju mboolem ku fa jàng woon da ngay ñëw fekkee amoo ngànt ña fa nekk tamit xaalan ni seen wajur dañ leen fay woo ak seen mag seen i kilifa waaye itam di fa woo ñëpp ñu ñëw fa xafla la la boo xam li ko tax a jóg daara ji sëriñ bi sosu ko waaye ña fa jàng ñoo ko sosal seen bopp mu nekk benn ziar dañuy nemmi seen biir buñ ñëwee ñu wax leen tolluwaayu liggéey bi ak programme liggéey bi ak problème yi xam moo fi am ak tamit yi xam moom la ñuy sàkku mooy mataalib yi nga xam moom la ñuy sàkku ci ci waajur yi di ko sàkku tamit jullit ñi bis boobu moom la ñuy waajal mu nekk la trois mars ci 2024 bi sureetut kooku itam bëgg nañ képp ko dégg suñu kàddu tamit boo ci mënee teew alhamdulilah bëgg nañ nga teew ca boo ca mën a teew tamit maanaam boo amee loo cay def tamit bëgg nañ nga def ko ca waaye rawatina rawatina waajur yi ak ñi nga xam si ñoo fa jaaroon ñooñu ñoom ñoo ci jiitu ñoo ci jiitu si woote bi waaye tam di ci woo jullit ñëpp nag waaw. tabaarakallah al imam kon defe naa ne jullit yëpp dëgg la ñu woote bi moom itam te mooy woote ñi nga xam ne ñoo génnee ci mahad tasir al asir boo bàyyi Mor Diop ca Ndar ñu cay occasion ne du nuyu sunu sunu magu daara Cheikh Mouhamadul Xayr directeur général waaye sunu mbokkum dara sunu promotionnaire al oustaz Mouhamadou Moustapha Diop Ndar den ñaan na yàlla yàlla yàlla mottali seen yoon eh, sëñ Sidi yaa ngi duggoon ci ñu ko oustaz mujjee ci nguur gi jàpp ba war a jàpp ci liggéey bi wax ngeen nu affaire xale yi nga xam ne ñoom ñoom la ñu jëloon te war leen a def ay liggéeykat yoo xam ne dañuy nekk ñu officiel ñu leen di defal li ñu defal seen ñu ñu tollool taxawaay ci biir réew mi te am na mu des nag ñaari point yoo xam ne junj nga ko sànq bi ñuy bëgg tàmbali te mooy ka jam iya mu rëy moo xam ne yëmul Sénégal dong aswamek kon bu Sénégal tolloo ci yenn yi defe naa jaadu na ñu dégg seen kàddu ngeen wax ni nañ def nangam sàkkoo ko jàmm benn def nangam sàkkoo ko jàmm nag daa mel ni tudd ngeen ci ñaar tudd ngeen ci ñu góorgóorlu ci euh, li li li réew mi sarti réew mi tëral ne nañ ko doxale pour jàmm am ci façon ban tudd ngeen itam beneen ci wàllu ñi nga xam ni suñ daar yu baar lañu ñu ngi ci kaso yi kat lan ngeen di xalaat ci ñooñu ak lan ngeen di sant nguur gi ci loolu ñu def ko bu dee lu ñuy ñaan la ngeen ñu ñaan bu dee lu ñuy santaan lan ngeen di santaane en tant que as dëkk buy yëngu ci alquran karim mboolo yee ne fa di yëngu ci alquran karim alquran karim seen daara yi di ko yor te seen daara yaa nga ca kaso ba loo ciy wax waaw eh, eh, lu am la def naa mat na ñaari at bi état bi taxawalee mooy journée nationale di daara ñaari at yëpp defe naa ñu ngi koy defee fële ci jam ñaajo mm-hmm. te ñaar yi bokk na ci càkk càkkutéef yi yi nga xam daanaka jamiyaat yëpp sàkku nañ ko rawatina aswaamek mm-hmm. mooy am na ay sëriñ daara yoo xam ne ñu ngi ci kaso yi ñu téye te ñi ci bari lan leen téye mooy xëy na jël yar dóor xale rek xoos walla dagg-dagg ci ginnaaw ñu jàpp tëj am ci ñoo xam ne tuuma yoo xam ne lu ko justifié sax amagul te fees nañ dell ci kaso yi ñaari at yëpp nag ñu ngi koy sàkku xëy na sàkkuwaat lay doon ñi nga xam ne seeni mbir àtte nañ leen ba noppi ñaan ñu def ca goyefal ki nga xam ñi nga xam ne àtteeguñ leen te ñu nekk ci dëkk bi mënuñoo daw ñu réeruñu demuñu fenn léegi sax am nañu système bracelet électronique même bu fekkee moom lañ leen takkal hmm. ñu takkal leen ko te bàyyi leen ñu dellu ci seen daaree toog di jàngal alxuraan waxtu wuñ leen soxlaa ñu wooleet ñu ñëw waaye tëj rek fàtte hmm. am na ñoo xam ne ay at a ngi nii ñu tëj ñu téye leen kenn attewu leen kenn attewu leen ñi ci ëpp sax léeg-léeg tuuma ba ñu teg seen ginnaaw mën nañoo def ay at génn ñu atte leen ne def leen dara dem leen ñibbi kon li gën woyafal am ci ak yërmande gis na nañu ñu ngi bàyyi fan yi ñi nga xam ne ci mbiru politik lañ leen jàppoon ak coow waaye ñun ñi nga xam ne tamit ay sëriñu daara lañ am ay jafe-jafe ak yoon te su suñuy mbir leeragul ñu téye leen mm. ñu sàkkooti ñu bàyyi leen ba buñ leen soxlaa génn leen ñun ci atte it bu ci woyafal ne am ñu jéem ci ak woyafal loolu sàkkoteef la boo xam ne association bi mu ngi koy sàkko ay at a nii te ñu ngi cay taxaw ba léegi mm. yaa ngi koy wax sànq réew nag bu tollee fenn fi ci coow toll fa ci ay situation politique yu xaw difficile xaw jaxasoo dafay impacté ñëpp kenn ku nekk am nga sa am nga ci sa wàll ñun ay jàngalekatu alxuraan lan yor ay daara ci ñun am na ci ñoo xam ne am nañu ay moyen ba am ay internat hmm. di jàngale alxuraan ci ñun am na ci ñoo xam ne amuñu moyen boobu xale yi ñu yor dañuy génn pour pour ñu lekk dañuy yelwaani pour mën a añ hmm. dañuy génn yelwaani pour mën a reer hmm. dañuy génn yelwaani pour mën a ndékki bu ay yëngu-yëngu amee ci dëkk bi ni ñëpp téye seeni doom xale yooyu noonu la leen sëñ daara bi di téye hmm. te xale yooyu bu ñu yelwaanu du ñu lekk <laughs> waaw kon forcément day am ay jafe-jafe ak i problème yoo xam ne sëñ bi da koy comme ñoom amaguñu solution ci ñi nga xam ne ci yalwaan la ñu toll ba léegi ñun Sénégal suñu état bi trouvé gul benn solution ci loolu te ñoom it seen doole ci loolu la tollu ñu bañ leen a fàtte ci mbir mi. Mm-hmm. ndax kenn ku nekk xam ne nu yan la bu dëkk bi ne mu ngi tàgg ko am oto gaare nga oto sa kër ko war a liggéey doo liggéey. kon rawat na xale boo xam ne ay atam àggut ci fukki kenn du ko bàyyi ci dëkk yi muy jànkoonte ak yenn jafe-jafe yi ana seen ndimbal yi leen gaañu noonu ñu ngi leen koy andil bi ñu ngi xaar rek ñëw na wala ñëwul waaw ah, ñëwagul ñu ngi xaarandi ceeb beeg bagage yi baax na sax baax na sax waaye am na am na daal lu gën a nekk priorité que loolu am na lu ñu gën a soxla que loolu waaye daal li am solo mooy réew mi ñu fexe mu am mu am dal mu fexe mu am jàmm mu am salaam parce que ñi muy laal dafa bari jàmm ak dal ak salaam ak stabilité ku yàlla dénk réew yaay premier responsable ci loolu yaay ki jiitu ci stabilité am ci dëkk bi stabilité am ci dëkk bi mooy nga fexe ba kenn ku nekk àqam ñu jox ko kenn ku nekk bañ a tooñ kenn li nga xam ne moo ñu tënk ci ay charte nga xam ne ñun ñëpp moo ñu boole tënk moo xam constitution lañ ko tuddee ñu bokk tënk ci loola mm-hmm. la mu tëral itam kenn bañ a wàcc loola mm-hmm. defe naa loolu su fekkee jaar nañ ci yoon woowu mën naa am jàmm dana am ñi ngi dëgmal ay élection kenn ku nekk yëg na coow li ci am ba njiitu réew mi waxee ne randal nay élection wala sax voilà ay élection amatul nit ñaa ngi wax randal waaye li wax mooy élection yi euh, amatul jur na coow te ñi nga xam ne ñoom la seen xam-xam màcc ci loolu dañ jàng ñëpp te féetewu ni ci nguur la ñu wax mooy jaaduwul mm-hmm. benn benn nit yi nga dégg ñu wax ne jaadu na mooy ñi bokk ci ñoom te seen ceeb di ci niinee mm-hmm. ñam màndu te sérieux te bokk ci ñoom sax doo dégg seen kàddu ji kon ñu ngi ñaanaat njiitu réew mi mu delloo siwaat xelam ñun en tant que ay sëriñu daara ay jàngalekat dellu si xelam ci fexe ba jàmm am buy jógee ci réew mi di dem mu dem ci jàmm ak salaam fexe ba loxo yi niñ ko ko joxee woon mm-hmm. mu waat ko fi noonu delloo siwaat ko noonu barakallah loolu mooy mooy ndamam mhm. loolu mooy mooy sagam jërëjëf loolu la ñëpp di xaar ci moom en tant que association ñu wax ci turu suñu daara yi nga xam ne ñu ngi ci aswaam meeg yëpp mhm. loolu mooy suñu sàkkuteef mhm. ñu ngi ci def ay waxtaan ay yoo xam ne bëgg nañ génnaat yeneen sorti pour gën a waxaat ci loolu sàkkuteef fi daal mooy na jàmm am tam moom bi nga xam ne moom la yàlla dénk nguur gi mu xoolaat ginnaawam te xam ne ba ko ko yàlla jox ay million yi millions yi sénégalais ñu ngi fi da ñëpp a bëgg jërëjëf xool fa mu jógee ba yegsi fii yàlla teral ko ba ak suuf mu fexe ba teraanga jooju mu bañ ko yàq jërëjëf loolu daal mooy sàkkuteef bi jërëjëf ok jërëjëf kàddu yooyu moom tabaarakallah defe naa ni politiciens yeeg liggéeykat yeeg jàngkat yeeg kooku moom wax nañ ko ba àggale yàlla na ci yàlla eh, defal eh, tabarakallah tawfiq defe naa ne fan yi nag am na ci yeneen yoo xam ne mi ngi ñëw ci luy nduru luy war a jàppandal loolu oustaz sa kàddu gu mujj ngay tàggoo xanaa di gërëmaat bu baax ñi nga xam ne ñi ñuy seetaan ñëpp fu ñu maa nekk eh, di rafetlu liggéey bi oustaz di gërëm caméraman beeg maam personnel bi liggéey yëpp di leen ñaan yàlla gën leen a may kattan te télé bi itam suñu borom yokk maqaamay télé bi kilifa gi tamit suñu borom kon ni ma ko ñaan woon ci njëlbeen gi Seydou Mouhamed Moustapha moom suñu borom gën koo guddalee dimbali. ndax li ma wax léegi moom bokk na ci ñi nga xam ne si moom bay na waaram ci réew mi ci côté bu bari. ndax féete féete woon féete na askan wi ci côté yëpp te muy doon loo xam si lu mu gëm la. maam kon kooku moom ku mat a ñaan la ku mat a ku mat a ku mat a royal tamit yàlla yàlla yokk kattanam bu baax a baax ak bala ñu ci gannaawam ñëpp di la gërëm oustaz ci émission am na solo kër gi bii ñëw xam nañu suñu kër la mm-hmm. waaye bi agsee tamit waxtaan yow xam nañu yow suñu mbokk nga te itam am na kóllëre gu ñu boole yàgg ndax suñu mag Mouhamadou Moustapha ngeen jàngandoo yéen ñaar ca gànnaar bokkandoo bokk bokkoon beneen néeg tëddandoo ay at loolu rëy la loolu bi mu accès laa koy door xam léegi bi ma woowee sama kilifa sax léegi ci téléphone di ko wax dina ma xam naa ko baax a a baax kon loolu tamit ñu ngi koy sant yàlla baax a baax sant oustaz euh, Sidi moom itam wax dëgg yàlla wax na wax ju am solo te waxal na ko sëriñ daar yëpp te itam mawqif bi mu wax mooy mooy mawqif sëriñ daar yëpp am kon macha allah itam di ko gërëm bu baax di ñaan yàlla yàlla dagg taxawaayam kàddu yooyu daal lañ doon tëjee di jotal directeur général sëñ Ahmadou mi xam mu nekk ci bopp daara ja mi mi ngi leen di gërëm di leen sant baax rafetlu liggéey bi wasalaamaaleykum wa barakaatu trois secondes euh, xam naa du bari sant ngërëm rek lay doon uh-huh. di ñaanalaat encore borom kër gi mm-hmm. ni ko Sadio waxee li ko war ci diine ak ci mm-hmm. askan ci société mm-hmm. def na ko yàlla na ko yàlla fay yàlla fayee ko ko wér fayeeku ko dund fayee ko ko sàmmal ko sàmmal ko njabootam mottalil ko yéenem jaajëfal ñi fi nekk ci liggéey bu baax a baax di sant bu baax yow it nekk nit daara di ñaan émission bi aussi mu gën a gën a yaatu <laughs> gën a avancé parce que Mourchid fii këru daara yi la mm-hmm. te nun sëñ daara yi émission bi lañ am waaw ñu gën a ubbeeku bu baax a baax a baax euh, fekk si suñu daara yi suñu daara yëpp jàpp ci télé bi itam jàpp ci yokk ci dooleem bu baax a baax sponsor yi ñëw encore acca asalaamaaleykum wa rahmatullah jërëjëf sëñ Sidi jërëjëf euh, Sidi Jibril xanaa télé baa ngi leen sant bu baax a baax di leen gërëm itam tey ñaan seen disponibilité bi ngeen am ba ñëw yàlla na ko yàlla def kattan ngeen di ko jëriñoo fi dunya wal axira ndax alquran moom àddina ak alaxira la taxawul fii dong mm-hmm. télé bi itam tabaarakallah ah, gis nga ko noonu Cheikhul Hadj Omar a ngi noonu taxaw rek ci caméra bi ak ñum ko àndal ñoom sëñ Richard ak it ñoom Hadj Makhtar ñu nga foofa ci régie ba di topp liggéey bi yàlla na yàlla fay leen yiw directeur général Hadj Makhtar yàlla dëggal ko kattanal ko ak ñu mu ko àndal ñëpp Cheikh Seydi Mouhamed Moustapha Sy yàlla mootali yéeneem ak li mébétam li ngeen wax ci moom rek loolu mooy li ci nekk moom daal ci diine ji ci réew mi ci li dagal nit doomu aadama kum mu doon ku ñëw ca nga koy fekk ku demit ca nga koy bàyyi lu koy wax nag ci foofu nga ko ko waxee waaye moom ma nga ci rek hmm. ndax koy defal yàlla da nga def rek da nga def rek ba yàlla fekk la te yàlla nga ko ci fekk toujours nag yàlla looluy sax bu ko defee daara yi télé baa nii moo xam commerçant yi la moo xam industriel yi la moo xam jàngalekat yi la ñëpp am nañu fi seen wàll ne ñu ñëw jël ko jël njëg bàyyi fa njëg taxul yëf a seer dala koy jaral rek jël njëg bàyyi fa njëg te kon mbir a seer de dala koy jalal rek kon li ñuy sànq ci alal yu bari ci biir réew mi ci pecc xoo ak ci ñàkk diine bu ñu ko soppee energie def ko ci télé bi def ko ci alxuraan gi def ko ci daara yi dundal ko incha allahu taala léppay dox li ngi tawat lépp day jeex ndax lépp day jaar nii te sunu borom daa bëgg lu jaar nii réew mi dañoo bëgg mu jaar nii diine yi jaar nii wenn yoon la amul yaar yoon a yàlla yàlla defal nu sutura yàlla defal nu tawfiq kon ñi ngi woo ñëpp ci noonu ñi ngi ñaan tam sunu borom ñëpp ma kattanal leen ba loolu jàppandi leen innahu ala allah yasir wa ma dalika ala allah bi aziz assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu jërëjëf